Bienvenue sur Salam Vision. ñoo ngi leen ziare bu baax di leen nuyu di leen ziare bu baax fii ci studio Salam Vision di leen tàmbalil suñu émission bi ñuy wax ëttub démb ah seen cee waxtaan ak yéen ñun ñëpp ñu bokk ci jariñu ndax ëttub démb nag moom kàddu mag ñu njëkk ña la ah li ko tax a jóg nag mooy waxtaane loo xam ne ñun ñëpp daañu ko jariñoo mag gis ci boppam gone gis ci boppam ndax boo xamul démb doo xam tey la démb nag su wonni koo ñi nit ñi ñoo ko fi jëlee waaye lu baax ak teraanga ak cosaan du fi jóg mukk ci àddina ci loolu lañ bëgg a waxtaan ak yéen maag sama invité bii ma àndal di alaaji Maxu Bay ñu ñu ñu faram-fàcce ko ñun ñëpp ànd jëriñoo ko bisimilah alaaji Maxu Bay. di dellu si wàccuwaay di nuyu waa Salam Vision di nuyu ñëpp mag ak ndaw di jigéen di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora di ñaanal ñëpp yàlla na jàpp yàlla Sénégal loolu seen émission bi moom wax dëgg yàlla tey fii ba suba boo si wax ba tuuti toog ko du jeex te dèjà tamit bu boo ñëwaatee si émission bi rek damay doon wax bu ñu neex sañ si am ñu ngay tëllu kàddu jërë ngeen jëf waaw Alaay Mbaye loolu nga wax rafet na ndax euh, émission bi fa bañ bi ñu tàmbaloon moom la ñuy yeggale nii rek mm-hmm. ndax dimbalante ci leen bëgg a waxtaan ñun ñëpp ñu bokk ci jariñ ndax ndimbal dafa am solo mm-hmm. jamono bii ñu toll nii sax moo ci raw ndax nit ñi mm-hmm. ñu ci bari mënuñu seen bor te bu fekkee ne yàlla dalaa dimbali euh, ci sa biiru askan yàlla dimbali la nga am da ngaa war a dimbali ñu amul geestu leen bu leen bu leen bu leen daw bu leen fari di leen gëstu di xam li nekk ci ñoom ndax jamono bi ñu toll nii metti na loolu sax ci ñépp na surtout borom kër metti na ci doomu aadama boo xam ne nii dafa wokk te ay bokkam mënuñu koo faj yàlla maye la gan nga ne ci seen biir te mënoo te te mënoo te mënoo koo dimbali te nit ñi ñu ci bari dëj lañu ñu mën waaye mënuñoo faj faj ku mhm. moo ëpp solo fuuf di dëj di génni nag ak di lekk ka naan ak xaxaloo mhm. yooyu amul benn njëriñ te fekk kooku kat mhm. la ngeen di dépensé ci dëj ba buñ genn wàll gi donc buñ ko defoon ci moom mu wér te loolu mooy loolu loolu moo xew ci jamono bi ci loolu nag lañ bëgg a waxtaan tey ak suñu mbokk yi alaaji ma ko bay dëgg la waaw kon seen cia euh, comme li nga wax rek tey jii loo ñëw del si waat si wàllu ndimbal ma lay wax sànq gis ku si mel ni alaaji di bay waaye alaaji di bay def ko ko baax. marqué na jamonoom mooy alaaj jiri mbay. marqué na jamonoom def na lu baax ba tey. alaaj jiri macha allah. Mhm. ku dem lu nga mu dëgg da xam ne defar na ko. dëgg dëgg saa yaram daal daan def nag sa sa sa wax daan def sa yàlla tax. dëgg la de loolu muy def mooy àdduna. dëgg la de di ndimbal ndimbal dafay fekk loxoy borom. def na lu baax ba tey képp ku def lu baax ah boo dëgg rek yàlla war na ko. Mm. yàlla xeebul dara. dëgg la yàlla xeebul dara. dëgg la te nañuy dimbalante. dëgg la dimbalante am solo nañuy dimbalante dimbalante am solo Sénégal kenn bëggul waaye loolu wax dëgg yàlla du ñëpp la yàlla may yàlla mm-hmm. daa bëgg na ci coppal nga joxe bëgg nga joxe waaw ji boo bu la yàlla mayee dara na ci coppal daan mu wax sa tey jii képp ku yàlla may nga suturaal mm-hmm. ngay génn di joxe loolu moo lay tey mooy sa gàllank dëgg la boo sàgganu sax ku def si yow sa yàlla da ko da dëgg la di lu dafa am solo daf ñuy dimbalante bu baax a baax waaw jërëjëf waaw ndimbal dafa baax ndax ndimbal yàlla ku mu jox dala joxe lool mm-hmm. te ki ñu war a dimbali dëgg mooy ki mënulul boppam dara mm-hmm. ki wokk dal ci kawam mm-hmm. ay bokkam bu ñu dajalee li ñu am lépp mënuñu koo faj koo ko jar a dimbali nag koo ko jar jàppale su ko defee nag ah, nit ñi ñu bàyyi puukare bi nag ndax alal jii àddina rek la yem boo xoolee sa maam maamaat ya ñëpp faatu nañ say bàyyi yéen ñooñu maaseeloon ñëpp dem nañ ku ci defutoon lu baax it dootoo ko mën a def ñi fi desalee ñaanal képp boo amul ku la ñaanal li sa des moom yàllaa ko xam mhm. moo tax nag mhm. booy dund mhm. yàlla jox la xéewal da nga ciy def lu baax te alalkat li nga ciy lekk ci sa biir moom mu nga ci am ak li nga ci def ci lu baax li ci des lépp ndono la boo ko fi bàyyee ñu foye ko sa gannaaw duñ ci def lu baax te lépp ci sa kaw lay këpp kon nag yàlla boo la joxee ci biiru askan mm. dalaa joxe loo lu mag ñu njëkk ña daan def mm. uuf seen néegu ndey mm. uuf seen néegu bàyyi di leen dimbali di leen jàppale kër mag ñi kër boo ci gis rek jur na fukki kër maa la ko wax te loolu mooy ndimbal nit ki da nga koy dimbali ci bi mu mënagul waaye ki man mm-hmm. yorub jàng na dama koy dolli dimbali woo ko da nga koy foloo rek ki nga xam ne nii moo sës ci yow mm-hmm. di sa deret mm-hmm. di sa lépp di xiif ak njabootam sonn dimbali woo ko defaloo yàlla de te yàlla kat wootewul aw xew ku ko bëgg a ci nit ñi ko koy def yàlla nit ñi mooy ndamam lu ko waay mën a yekkal ci ndëb ci ci ci nit ñi nga koy def loolu moo tax ndimbal am solo am solo alaaji Max Mbaye dëgg la Cheikh euh, li nga wax dëgg la sa kàddu rafet na ndimbal tey ji moo doon loo xam tey ji yàlla gëmul nelawul lépp muy toog di xaar tey jii bu bu ki sonn nga dimbali ko ah bu bu lëggee ah say néeg ma nga àjjana mm-hmm. beneen bi tey jii boo nekkee si ak aw askan tane leen hmm. nga ñëw di leen dimbali say cheikh yaakaar naa sax bu yàggee yow kenn dutu la nàmb sax ah dafa sa devoir comme li ma la kon fa yee passé rek sunu sunu dafa am benn moodu moodu boo xam bi mu duggee da koo yaatal yóbbu ñëpp ah, waaw loolu ndimbal yóbbu kenn loolu ndimbal mujjee xale ñoo ko tax tabaxal sa tur di kot nijaay yow defe naa buñ defulee suñu ay gox ndax defe naa dëkk bi yow yaa meññ lépp jël ñu yóbbu leen Europe dëgg la dimbali ñu jàppale ñu dawoo benn yoon. Mhm. te dèjà li ñu la defal yow yaa ko militoo. dëgg ba heure bu la neexee ba say mbay di baawaat. waaw ah. loolu yaa ko moom. dëgg te kan dèjà kon kooku kenn ko si. dëgg la kooku kooku kooku koy dimbal. loolooy def lu baax looloo mooy def lu baax. loolooy def lu baax dimbal day yaatu. Mhm. dimbal suñu cheikh day yaatu. dëgg la waaw day yaatu boo ko defee rek yàlla gëmuñ ne la woon. dëgg la waaw soo ko def lu baax am lu baax. dëgg la dëgg la ndimbal dafa yaatu alaaj ma ko bay. dëgg la suñu cheikh. ba yegg ci loo xam ne. Mhm. Euh, nit liñ ko war a dimbalee dafa bari. dëgg la da ngay gis koo xam ne nii mhm. yàlla da koy mën a gan mu dem ànd ak i jàmbur bàyyi ay bokkam loolu day du gor gor piir mhm. day ànd ak i bokkam lu mu am bokk koog ñoom bu ëllëgee mhm. kenn du la mën a jam waaye jamono bii ñu toll nii nit ñi fo gën a mën di lay tuddee ay lamb di la tuddee ay soirée di la tudde ay lu kenn xamul nga ànd ak ñoom bàyyi say bokk ñu xiif <laughs> bàyyi leen ñu mar dimbali woo leen ci dara doo leen gëstu li gën a metti ci àdduna mooy dëkk ci ndox te amoo loo lekk billaay dëgg loolu lu ko gën a metti amul te loolu am ci jamono am na fi xam ne nii mm-hmm. boo nekkee ci jàmm mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi ci aw naqar billaay dëgg su ko defee nga gëstu leen dox ndax ki feebar mm-hmm. mënul tul boppam dara moom dañ dimbili dimbali loolu te jamono bii ñu toll nii gis nga ni mu mettee lépp a metti boo fekkee na koo xam ne ay bokkam yépp bu ñu dajalee la am munuñu koo faj yàlla dimbali la nga am dégg ko daal di jóg ndànk dem ba ca ñoom laaj leen lu xew ñu wax la lépp na mu demee nga jël ko en charge faj ko ba mu wér tabaxal nga sa bopp àjjana tabax nga sa kër ci àjjana rek ndax loolu dong la yàlla bëgg ba mu wàccee suñu maam aadama mhm. jox ko njaboot mhm. da leen a boole woon pour ñu dimbalante képp loolu moo tax ndimbal am solo mag ñi moom mm-hmm. teg nañ seen tànk fañ ko tegoon jamono bii ñu tollu nii na gone ñoo wàcc yoon wi nag delloo si leen nag lu jafe ndax foo mi dafa bari dañoo topp culture yoo xam ne nii suñu culture bokk ñoom ñooñu waaso bokk ñu ay ndimbal ñun mm-hmm. suñuy mag mm-hmm. lu ñu màggat màggat mm. keroog lañ leen gën a bëgg ñii nag dañuy jël seen i màggat sànni ci àll ba wala ñu tëj leen ci ay waañ ñun xamuñu loolu de mag mu màggat bañ koy weer ak weri moom lañ gën a bëgg sax ñun loolu mooy suñu diine mooy suñu culture ñun Sénégal loolu lañ xam léegi nag ñu dellu si waat ci jëfinu mag ña mm-hmm. ànd ci mm-hmm. loolu daal lañ ma ko mbay moo jaadu bilaay dëgg la Cheikh Cheikh Cheikh maanaam ndimbal mooy li nga xam tey bi képp koy def rek macha allah foo nekk rek day wax alhamdulilahi rabil alamin yàlla lu bàyyi mu man gis naa sama boo xam gis na simal la bëgg sama tut ma toog émission culturelle waaye fu tabaski jub see mu woo ma ni ma nijaay man ko ah, ku ne xamoo li ci tabaski te tey bi lii rek la ma yàlla teral pour ma bokk ak yéen joxal ma ko lii diw joxal ma ko lii diw jox damay kontaan ba ci ba dama naan ko sax diw mun ma naa man xoolal man daggal sama jëkk jox mag ñi joxuñ ma féete mag jox sa jox suñuy garant ndax mën ni sax ma ko defal ndax maa ko woon def waaye ku ne xam nga jamono te dèjà boo defee loolu gàcce nga laal hmm. bëggul mooy turam sa waaye ku def lu baax rek bu mu toogee dañ koy wax ah, xam nga ne xam nga coolee tabaski ah euh, nit nekk sa àll ba yëkkati lu mu dee dee benn cinquante mille ah lii kat maa la ko dimbalee ah koo jox cinquante mille yaakaar naa léegi xas bëgg a ñëw de si si jamonoy tabaski te dèjà mooy kii def loolu rek yàlla yàlla yokk taxawaayam. amiin amiin amiin suuduwaal ko. jërëjëf Aliou Sow jërëjëf ah ndimbal nag loolu la. soo gisee suñu émission bii passé mm-hmm. ma ciy tudd El Hadj Cheikh ndax Diop mii moom Diop. Mm-hmm. di xaritam bu ko neexoon na kat jóg fa mu dëkk de du ma dugal sama oto bi du dem di ko seet ndax fa mu dëkk mi hmm. nga wutal fi ma dëkk waaye deful loolu daa ànd ak moom rek di ko dimbali te yàlla te noonu mu ko dimbalee hmm. ci bokkam la ko jëkke loolu mooy dimbal da ngay fekk ku mënalul boppam dara hmm. nga ñëw suqali ko jàppale ko soo gisee asaka yàlla sàkk ko mooy daa bëgg yow mi ko génnee ki nga ko jox. Mm-hmm. bu nee mu génnee moom it. dëgg la sàmm loolu mooy asaka. dëgg la sàmm waaye jël ko. Mm-hmm. nga war a génnee asaka. Mm-hmm. dem def ko ay morso morso. dëgg la nga togg ko aw ñam di ko joxe. yàlla santaane wu loolu de li mu santaane mooy. nga xool ñaar ci sa wàllu ndey. xool ñaar ci sa wàllu baay. kenn ku ci nekk nga jox ko lu am solo. bu déwénee ñoom it. ñu génnee asaka. dëgg la noonu def ba loolu nga xam ne mooy ñàkk. jóge fii yàlla loolu la ci jublu. dimbalante daal ah, ah. mooy adduna bu fekkee ne nag nit ñi mm-hmm. kenn ku ne da ngaa seetaan sa morom mm-hmm. dana metti lool de fa ñu jëm ëllëg kenn dootul amati lenn looy looy toppe sa mbokk te mm-hmm. mbokk yàllaa ko sàkk nag boole ñu ñu bokk deret boole ñii ñu bokk aw làkk boole ñii ñu bokk aw làkk lam ci jublu mooy ñu dimbalante kenn ku ci nekk xool sa morom kenn ku ne gestu sa morom loolu la moom ñu njëkk ña daan def waaye léegi nit ñi dañuy noonoonte xas sa mbokk sax moo leen gën a yàq ko lu mel na xame loo xam ne nii weñu ca dal dee tamit sa mbokk di sa lépp nga xam ne yéen a bokk néegu mbéy muy saw meen bu naawee nga naaw amul lenn loo ko mën a dimbalee lu dul jàppale ko ba mu mel ni yow waaye su ma ko dimbalee day mel ni man loolu nag du gor loolu du jom loolu du jëf ju baax nit ñi daal uh-huh. ala li li xew daal ci jamono bii ah alaaj ma ko bay uh-huh. doy na waar doy na waar sëñ Cheikh mooy li ma la wax sànq rek ndimbal mi ngi am nag am ñu koy def ndax man gis naa génn góor goo xam ne dafa dëkk Touba moom doo nga këram moom këram doy waar lool moom góor gi ay gars ñëw màggal si Touba bi ñu ñëwee Touba màggal si ñu doom góor gi moom doo mu toog seetu bi kër gi yaatu gars yi ni ah ñun seen toog fi war seen judd nuyu góor gi mën a màggale fii comme dëkk bi daa xam ñoom ñu waxtaan ba seen bi yow seen benn oto bi ñu dugg see ñun ñu ñu góor gi ñun kat doo ñëwoon màggal si bëgg fu mu nekk seen cheikh mhm. yaa ngi dégg waaw waaye nag euh, ah bëggu ñoo sonal kenn ñu gis sa kër gi yaatu lool ñu bëgg fee toog rek màggale fi mhm. góor gi ne ah daal ñu toog ne a sama soxlaa bi nekk sama benn doom moom foofu daal jaay fee café garage waaye nag benn néeg laa yor ay ni ko yow daal may ñu rek mhm. kilam at nag ñu ay ñu naa toog wàcc seen i bagage naan seen lew seen deuxième li lépp nag si ndimbal la rek ah, ndax ndimbal moo demee noonu ndax tam loolu ndimbal la mm-hmm. bi naa seen lew seen ñu góor gi ñu ngi ma nga daral nga indi seen benn nag ñu góor gi ci la ñu màggale ah. yaa may dégg mm-hmm. ñu ñu màggal ba pare toog ndaw dem moom góor dem waaye soxna si ñëwoon am na ay gan moom mm-hmm. jamono doy na waar biñ yaay jafe-jafe bi ñëwee dem woo ay bokk ñu am ay li ñu wax dan màggal ñooñu màggal ba pare jël lépp jox góor gi. ñu ko rek saa def jëlal ñu ngi dem avant màggal di ñëwaat dafa la kër ga satu sa biir kër ga. kon loolu lay ndimbal tabaxal ku kër kon loolu lay ndimbal. loolu lay ndimbal loolu lay ndimbal waaw tabaxal nag. alaaj Mokho Mbaye dëgg la ah soo demee Touba da nga ko gis. dëgg la dëgg ndax bari na fa. boo xoolee màggal yu njëkk ya. nga xam ne booba Touba dëgg la. ay dibiteer yi ñoo rangal restaurant yi. dëgg la Serigne Saliou woo ko fa jëlee. maalo koor daal di indi ndimbal. ndimbal ne dëgg dëggi màggal. dëgg li ko. maalo da ngay nit loolu moo nag ñëw tam dem Touba ñu al ko kër kon loolu lépp wàllu ndimbal la rek. Ah, ndimbal dafa yaatu. ndimbal dafa yaatu yàlla xëy na loo def ak yàlla bindal la baax. dëgg la bindal tiyaat. dëgg la loo def ak yàlla bindal tiyaat yàlla moom luy toog di xaar noppi noppi toog noppi nag. dëgg la boo defee lu baax mu bindal ko fu benn bu baax boo defee mu doon tamit yaa yaa ma gën a xam. la sa baax rek. dëgg la ndax yàlla gëmul nelawul ñu ngi toog di xaar te dina gën a góorgóorlu di jàppale te ñun mbokk yi di góorgóorlu ndimbal wàññiwul dara ki nga dim ki nga tane nga ko dimbil say seex wàññiwul dara foo nekk sa xel day dal sax foo toog kenn la xaram li nga waxoon rek tey ji koy dimbali loolu mooy doon doon sa gàllaay bu ma ñëwee ne ah sëñ Cheikh vraiment diw def loolu baax mhm. ah waaye nag bu ma sañoon benn mbokk ko yàq loolu mooy gàllaay jëf loolu mooy tax sax looloo koy téye ba fu mu dem du sonn mu loolu loolay li baax loolay li rafet mhm. ala ñu mbay mhm. ndax adduna bi daal euh, li ci am solo mooy kenn ku nekk yëg ne nit nga dëgg la sàmm kenn ku ci nekk yëg ne lii daw ci man mooy daw ci sama morom li ma bëgg moom la sama morom bëgg ndax ndimbal dafa am solo ndax ki lot du xool fenn fu dul fi la tibbalee te nag hmm. ki ëpp solo ci àddina mooy koo xam ne nii hmm. fu bëtam xonkee rek xelam def ci yow loolu mooy yoon te jamono bi hmm. ñi feebar bari nañ boo duggee ci hôpital yi seeram day daw loolu ci gis koo xam ne nii da lay wóor cëng ne kii fii mu tëdd ci hôpital amul kenn ku ko dimbali léegi yow mi nga xam ne yàlla wërsëgal na mm. ngay dugg ci hôpital yi di xool ngir nga man a amaat ngëmug yàlla mm. di dem ci armeel yi mm. ngir nga mën a amaat ragal yàlla loolu lañ ci jublu waaye boo fekkee ne nit ki daa xëy dugg ci buusam di sangu rek daanu mënalul boppam dara ay bokkam yëpp jóg jéem jéem mënuñu ci dara mm-hmm. seenum xel mm-hmm. day dem ci rek koo xam ne ni moo leen war a dimbali te loola jeex loolu ci boppam moo jeex jamono bi nit ñi dañuy nëbbatu mm-hmm. boo yoree alal da ngay dem fu kenn mënta ñëw nga dem dëkk fa daal di koy sécuriser ba nga xam ne kenn du fa mën a dugg te loolu musiba la waaye gis nga ne ajaratu Marème Faye Sall billaay kooku kooku ñu mën góor la ah li muy def coono mënu ko de fondation Servir le Sénégal def loo xam ne nii jigéen waxum soow nit ñi ci boppam ah bàyyi nañ ci xel nag bu baax fekk ku feebar koo xam ne mënulu boppam dara ay bokkam mënuñ ci moom dara mm-hmm. fondation Servir Sénégal ñëw ñëw jël fukki million ak juróom faj ko ba mu wér loolu cuune mënu ko bu ko neexoon mm-hmm. mu jël nguur gi nguuroo ko ànd ak borom kër te kenn du ko mënal dara waaye defu ko daa wàcc ci askan wi di leen xool di leen nemmeeku di leen faj man de gis naa ñoo xam ne mm-hmm. wax dëgg yàlla ah ajaratu Marème Faye Sall loxoom dugg na ci ñoom bu baax gone googu lakk ca ngaay billaay dëgg fële ca pir ca pir billaay xam nga ne gone googu day bu du toon ak ajaratu Marème Faye Sall ay bokk mënuñ ci ñaar moo ko jël moo ko jël waaw waaw moo ko jël billaay moo tax ko mu Marème Faye Sall mu ni yelamta la ma ngor ndax tamit deful deewoon na moo ko faj ku tudd Marème ku tudd ku tudd dugg première dame. mun na la nas kay ndax lan ko defal. Uh-huh. lakk ba ñëpp amatuñ ci moom yaakaar. billaay faj ko ba mu wér. ba mu wér te xamu ko man mii ma dem tëggee. dem dem sans benn waaye kërug jaboot kërug famille. ma nga xam nga kër lébu yi rek ma ñëw mairie des cent quatre-vingt ah diw ah gis nga sax xale yi de yaa ma gën a xam. waaw ñu ngi néewu góor ma leen ah ku def lii ñu ne ma dem fay la fi jaar. waaw waaw xale yi booy booy xool boo compté ëpp nañ téeméeri xale. ma ngoog dajale ñëpp te loolu kat waaw pay gi ci yàlla yi la ci yàlla yi fay. dëgg la kenn xamu ko. dëgg la ndax ñooñu. dëgg la fexe nga bañ doon julli. maa la ko wax ndax boo leen dugalee néegu góor. Mhm. daañu mën a julli. billaay daañu mën a doon ilimaan. maa la ko wax daañu mën a doon leneen. dëgg la daañu mën a denc soxna. maa la ko wax loolu nag. dëgg la fay gi la ci yàlla yi fay. dëgg la kenn xamut nu mu toll. ba boole nag feex boole oyof. ma nga billaay oyof ba pare te kenn du ko xam. dem naa am nga ne la dem naa am nga ne la euh, nu mu tuddati boole Cimetière Saint-Lazare. Cheikh bi bi ndaw si moom moo ko yóbbuwoon Màkka. wala bi ñu fa ñëwee sama gars yi ñëpp indi tabale yi di jàng daa bi ajotul jógee daa ànd ak moom di di fecc. di fecc ma bokk dèjà kat. moom la mel yow yow yaa baax yaa yaa xam néew war a de. billahi wala si néew war a ku la bëgg a remplacer tamit dem. ma nga naa jéem nag waaye ah du yomb de. moom daal yàlla yàlla may yàlla nañu ko yàlla lu baax lay def bu fekkoon ne mm-hmm. ah, li ñu ko jox mm-hmm. da koo jël yamala ko ci ay xaritam mm-hmm. waaye jàmbur bu mu xamul dana la fekk ba nga wér te kenn du xam ko mu doon ma dégg fii Iran Ndaw daa feebar yóbbu na ko France fekk ko ba mu ñibbisi nga xamul ne ma fay sàll ma jaay ma mbër ma keneen li bari ku lim juum li mu def lépp ci lu baax <laughs> yàlla na li mu yéene borom këram amiin ak jàppale bi mu koy jàppale. amiin yàlla na ko yàlla fay. waaye nag li mu def noonu rek la war a def. wallaay dëgg la 1975. laa xam papaam. dëgg la Baye As Faye. dëgg la ak Baye Ndiouro Faye. bu baax baax mi mi 1975 laa ñu xam ca kaw la. ma nekk xale bu ndaw. dëgg la muy ànd ak Mor Mati boobu laa ko xam. muy góor bu baax. dëgg nag. Mm. képp ku ñu meññi. dëgg nii rek ngay mën a mel. ci ngor ngay nekk. ci diine. dëgg la ci dëgg dëgg dëgg mm. mi ngi jàppale borom. non mu ni maa mu ni maa yow Sall yow Sall Ngaar yi fay. Ah. fay biram dundal ba sa may di baax baax. Ah, mi ngi def lu baax amoo yow man la amoo remplacement. mi ngi def lu baax. remplacement yombul. yow moom da yàlla macha allah ñu ngi lay sax di la gërëm di la ñaanal di la ñaanal sa borom kër. yéen bi yàlla na oyof si kàttanu yàlla ak sëñ bi maanaam. ma ku def lu baax lu baax kee moomul kenn. ma ngoog jërëjëf. ma ngoog jërëjëf. ku feebar ba mënul boppam dara <laughs> ay bokkam mënul. noonu lay def de nga ñëw yenn lépp. noonu lay def ko ba mu wér te kenn déggu ci sa Ba kenn gisu ko fenn. Eh, wane woo ko. filmé woo ko. jaarale woo ko fenn weeroo ko. la ko loolu yàlla rek kay defal nga liggéeyam moom daal xam naa ne. yàlla na ko yàlla fay. amiin yàlla na ko yàlla defal. jàmm defal ko borom këram. ba li ñu bëgg. Mm. yàlla defal leen ko. dëgg la amiin léegi nag alaaj Maodo Mbaye. Mm. Ah, dañuy daal di jublu nag. Mm. ci waxtaan nag. Mm-hmm. ndax jamono bi ñu toll nii. Mm-hmm. ah dëkk di xat na. xat na loolu mm-hmm. gor ñi amatuñ fi ñu dëkk ñëpp ngi taxawaalu daanaka koo gis fu mu dëkk lañu koo gis fu mu dëkk lañu mhm. boo xoolee dëkk bi ni mu ni mu bindoo rek mhm. nga xam ne Sénégal ah, xat na lool ci jaboot nga yor ñaari soxna mhm. yor sa njaboot bu sew amoo foo leen dugal ñii tëdd ci kaw ñii tëdd ci suuf loolu daal xam naa ne. ah nit ñi yàlla dimbali. Mm-hmm. ñu am ñu mën dara. Mm-hmm. te man lu baax. ah jaamu yàlla ngoog de ah. la ko jaamu yàlla dëgg ñu noonu. ku ko yàlla man doo. nga dagg ay terrain. ay terrain jox ko nit ñi dëgg. yàlla lay fay. képp koo xam ne lebal nga yàlla ker. guddi la lay fay fu la neex béréb. dëgg la Samb dëgg la Samb dëgg la Samb dëgg la Samb waaw adduna de moom noonu la moom. moo lay wax rek ku ne xam ne moom léegi dëgg bi doy na waar ndax bu njëkk sax dëkkuwaay mi woon nii te demoon na ba fu waay neex dëkk fu waay neex fanaan waaye léegi ku ne xam ne adduna bi xale yi màgg nañu réew mi màgg réew mi na nañu jaboot gi ñëw na doy na waar jaboot gi jaboot sonn na waaye nag képp ku sonn rek di nga jëriñ ndax tey jii mooy li nga wax rek sëñ Cheikh tey ku xëy joxe dépense boo xeeb te jii ëllëg mooy wàññi say bàkkaar dëgg la waaw képp ku xëy joxe dépense rek lu mu tuut tuut bu ko xeeb ëllëg tey jii li li gars yi naan paar day dem paar dëgg la bu dépense bu ak baakaar nga président dépense moom moom lañ koy wax. dëgg la chaque jour doom borom kër yi dañuy gën a góorgóorlu gën a góorgóorluwaat jàppale jamono bi jàppale soxna yi di góorgóorlu ku ne xam ne jamono métti na waaye nag ëllëg nag moom kenn sonn rek yàlla mu doon hasard dëgg la ah. yàlla yàlla yàlla moo doxale noonu addinaam lay na waaw waaw yàlla moo doxale noonu addinaam adduna yombul waaw addina yombul lépp a yombul waaw lépp dafa métti dafa métti dëgg dafa métti ci borom kër dafa métti ci borom kër <laughs> di dañ dañuy daw mm-hmm. yàlla xam na mm-hmm. fajar ngay jóg dëgg la génn sa kër di daw di wuti rek dëgg la suturloo ak seen njaboot dëgg la dëgg la dépasse mm-hmm. boo ko joxee mooy for say bàkkaar bàkkaar yi nga yi nga daloon ba ngay gone dépense bi nga joxe bi nga màggee yor sa kër loo loo looloo koy fóot moo tax yàlla yàlla mm. moo ci jàpp nag dépense nit mënu ko de yàllaa ciy jàpp ndax dundub doomu aadama yàllaa ko yor ndax boo xoolee mm-hmm. rab yi ci kër gi mm-hmm. jur gi ci kër gi te nit ñi yor leen gis ngeen ni ñu yooyee waaye boo demee ci àll ba ba gis rab ya fa ne nga xam ne ci yàlla lañ wékku direct doo gis mukk gaynde ko xiif ba rag mbaa nga gis nii ñayu xiif ba rag doo ko gis dañoo dañoo jublu ci yàlla direct wakkirlu ci yàlla nag mm. lu jafe la moo tax yàlla boole mm. ak bokk dëgg la nga dimbalante leen. Mm-hmm. ku mën lu baax. dee ko def ko def moromam. loolu la yàlla santaane. dëgg la sëñ Alaaji Mbay dëgg la yi nga wax dëgg la mooy li ma wax rek jamono ji moom képp koo xam yaa ngi toog def lu baax rek billaay sànnoo sa kanam doo ko rëccu ndax yàlla moom ñëpp la fi nekkal. la te tey ji bu la yàlla mooy li ma wax sànq li ngay cof di ko di ko jox doomu aadama yi xam yàlla day la néewal doole mm-hmm. ah yàlla mi ngi lay xaar lay walaay ndax ndimbal ndimbal dafa doon loo xam ne buy xeeb dara sarax sa ndimbal la sa jamono yi tamit nit ñi kenn bunul waaye nag dañuy gën a yokkuwaat di gën a góor di góorgóorlu góor ak di boole yéen mande ku ne xam ne yàlla mënta may ñëpp bu ñëpp mayoon bu mayoon ñëpp du neex yàlla bu moo defale noonu suñu jóoyu baaraam yi sax yaa may dégg cër yi cër yi sax ñëpp mënul toll tolloo wuñu dèjà yàlla moo doxal bu mayoon ñëpp ak lu neex tey bu la mayee da tax mu xooloon mayee si pële pourtant gënoo kii mayul de la waaye yàlla mooy jaa mooy mooy mooy gën a góorgóorlu di di yokk la xaar yàlla gëmul nelawul loo joxe rek la xaar te a yokk taxawaay yi gën a yokk ndimbal yi jàppale doomu aadama yi jàppale jàmm ñëpp bokkuñu yem na tey jii boo génnee léegi léegi gis ku la tane léegi gis nga gis koo xam ni ma nga ab kontam foofu mu jëm da ko faa jëmale mm-hmm. wala xam tey jii koo xam ni bu bëggee wax day wax yaa ma dégg nga dem si hôpital yi am ñoom la xam doy fan tëdd sa munu faam yi tey jii bu la yàlla seen sax ah, waaw waay waay waay dañuy xëy sax a baax a baax a baax nit ñi tamit na ñoo xam ne ñu dem si hôpital yi di gersu di xool ndax ku ne xam ne hôpital yi métti na mm-hmm. ordonnance cher na boo ñëwee boo néewee doole ba dul la laal dana lay tege. dëgg la tamit dañuy gën a yokk di jàppale nit ñi di jàppale doomu aadama yi. di gën a góorgóorlu di xool hôpital yi di leen nemmeeku di xool ñu feebar ñu leen di dimbali si ay ordonnance xam kon doy waar. dëgg la dama ne dafa doy waar. kon sëñ Cheikh maa lay delloo xam nga jamono bi ci boppam moom moo bindoo noonu. Mm-hmm. réew mi màgg. Mm-hmm. fi ñu yaakaaroon ne kenn du fa dëkk nit ñeen fa dëkk. dëgg la. jamono bi ci boppam moo màgg moo yaatu moo yaatu lool moo màgg. Mm-hmm. dëkk yëpp a màgg kon nag boo wala yàlla dimbalee euh, nga am i bokk mm-hmm. jéem leen a nemmeeku xool leen kenn ku ci nekk mm-hmm. nga dem ba ci këram xool na mu doog na mu toogee xool na mu kiyee mm-hmm. koo xam ne ku ko tudd tudd la lu xew ci yow dana wut ay démb ma ki daqaaram ñëw kooku de da nemmeeku ko lu jaadu la de ndax boo xoolee jamono bii Euh, ni muy doxee. Mm-hmm. ak ni mu mel léegi. ah ña ko ña ko liggéeyoon fekkewuñ ko. dëgg la mag ñu njëkk ña. Mm-hmm. lañ doon lekk. Mm-hmm. ñun buñ ñu ko joxoon tey jii. suñu xel xalaatu ko. ay laaxi daqaar lañ doon lekk. ay laaxi saf na. ay cere yi mbuum. yoo xam ne nii kenn xalaatul ci adduna. ne jamono bii ñu toll nii buñ la ko joxee nga lekk. dëgg la suñu yaay kon nag rek. ma ngoog dëgg la waaw mag ñu njëkk ña. am fekkewuñu gaz hmm? fekkewuñu courant fekkewuñu vall. fekkewuñu dara fekkewuñu dara ñoom ña ko hmm. taxani woon. ba hmm. togg ñam bi mosuñu ko. ah mosul loolu nag boo bu ñu ñëwee ba ci jamono bii nag ah, ba mu neex mm. nañ leen fàttaliku nag su ko defee ñi fi bàyyi ëllëg ñu mën ñoo dimbali ñoom it bis suñ doolee jeexee doom yi nga xam ne ñoom nga bàyyi woon sa gannaaw ñoom it ñu mën laa jàppale waaw noonu mooy àddina àddina jàppalante doomu la alaaji ma ko bay waaw ku si mel tey ji Cheikh mu ñëwati si alaaji alaaji Aliou Sow bàyyi yërëm Sow kooku mooy ku baax la ku ku yàgg def yàlla na ko yàlla yërëm fu mu tëdd yàlla na ko gënal fi fu maanaam tabax ay cité jël say employé xool ñu xam ne jamono naqari la ñu nekk ay jaboot nga tabax ay cité ba mu yegg ba mu yegg jox la dëkk ah foog cité ah, fekk ji mun na la kër ngi nii dëlëg moom yàlla la liggéeyal kooku yàlla la liggéeyal lu baax yàlla la liggéeyal ci liggéey ba retraité voilà amatul dara amatul dara waaw ñëw doole nga ne ko kër ngi nii maa la ko waaw sa pension gi nii mi ngoo kooku mu dafa loolu mooy ndimbal tubaab da lay nal ba sa doole jeex mu daal lay sànni ngay taxawal mhm. mag ñu bari fii mhm. bu ñu retraité rek daanaka ci faatu lañ jëm ndax la ñuy am mënu leen leen dara pension ba ñu leen di fay dara la leen jëlale leen jëriñ su ko defee amuñu jaboot boo xam ne mën na leen a dimbali coono ñëw na tey jii sëñ Cheikh sa ma ñëwati boo yoree kër yor ay kër kër di ko luwee kenn bu ñu sax ku dëkk ci kër jàmbur di nga fay waaye nag des fois nga ci daw yéen maa de daw yéen maa de mooy lenn ku ne xam ne ni ma wax sànq jamonoy Tabaski jamonoy weeru koor jaamu yàlla la. dëgg la bu ñëwee nee leen ka tey moom gratuit la bonus la. dëgg la Tabaski ñëw koo ko defal xam nga borom kër Tabaski jub si. famille familiale kay tey bonus la pourtant du la wàññi dara. dëgg la du la wàññi dara dalay yokk rek. waaw foofu weeru koor ñëw am ni weeru koor ni ko yàlla suturaalee weeru koor ñëw. Mm-hmm. ñu ne tey bonus la tabaski ñëw bonus la wala ay say kër yàlla dañ teg loxo dina barkeel. dëgg yàlla doo ko moom. dëgg la suuf. Mm-hmm. suñu borom kepp ko moom. dëgg la sax kii luyee. Mm-hmm. du am jàmm waaye yow mii luyee doo am jàmm. dëgg la sax ndax suuf yàllaa ko moom kenn moomu dëgg la daa am waa ji ma si ñëw sëñ Tuubaa mm-hmm. naan ko dañuy xëccoo suñuy tool daa bëgg nga ñaanal ma ci mm-hmm. mu ne ko bàyyi leen mu bañ dem ne ca xëccoo ba rek ne ca xëccoo ba ba mm-hmm. ba jot ci suuf sa daal di dellusiwaat ci sëñ bi ne ko suuf soo su ma fi doon xëccoo at yére yi jot naa ci suñ tubaab na boole nga ci asamaan sa ko kii moom daal ne waruñu woon ko suuf yàllaa ko moom billaay yàllaa ko moom ñii ñu luwee duñu am jàmm ñii ñuy luwee duñu am jàmm ci doñ doñ la ñuy dëkk ak def tribunal saa yoo demee tribunal da ngay atte ay jël ah, di atte ay luyaas ah, te nag nit ki dimbali ko mhm. yow mi am foo dëkk mhm. ba am looy luwee waay waay waay waay waaw waaw dëgg la daf ci yërmande waaye dañ lay noonoo billaay dañ lay noonoo dañuy noonoo seen luyaas duñ leen nuyu duñ leen tudd ndax luyaas bi mu la yoreel su weer bi xasee jege dootul nuyu kenn loolu ñaaw na nit ki nag mm-hmm. nu mu man a demee mm-hmm. kër googu nga tabax mm-hmm. dañ koy doon ci dëgg la keneen ci yeneen i loxo la jëm sama benn waaye seex dani ma damaa tabax kër ba mu yegg dëkkuma fa de comme nekkuma fa ma yëkkati jox ko ñu fa nekk ma toog ak génn góor bu am xam-xam mu ni ma loolu nga def yombul de waaye maa xam nga ni guddi gu nu fanaan yàlla marqué na la point. waaw waaw ku <laughs> ku xew dara mu ne ma guddi boobu ñaan ñoo ko jox guddi boobu fanaan am nga point. waaw bu guddi sa am nga ko. dëgg la waaye nee gën a fa bàyyi gën leen fa bàyyi waat leen dëkk leen ngeen dëgg la. loolu mooy ndimbal nit ki da nga koy dimbali ah, ci li mu lot waaye nit ki li mu am ba pare boo ko ci doon jox lu ne dimbali woo ko da nga koo dolli rek waaye ci lot mënalul boppam mm-hmm. nga nekk ba mm-hmm. nga def say enveloppe yu baax topp kër yi ku ne nga fëgg ko bu ubbee mm-hmm. nga ne ko ko yokk daal di dem saw yoon wallahi azim defal nga yàlla loo xam ne nii mi ngi mel ne fekke nga xare ba tax loolu mooy addina loolu mooy ndimbal waaye jamono bi ñu toll nii nit ñi fo lañ gën a bëgg koo xam ne bu ko sa mbokk yoree ñëw ci yow ne la ordonnance bii de moom laa bëgg nga jëndal ma nga ne ko yaamatane te boo jógee dem fii ca làmb ja di may ay waykat yoo xam ne li la wax dara du ci dëgg dara du ci loolu noonu nga ciy am waaye payub yàlla moo ëpp doole rek yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla nañu yàlla dimbali amiin amiin sëñ Cheikh amiin sëñ ñu ñu ñu delluwaat fi fi ñu tàmbali woon rek. waaw tey jii mooy li ma la moom. Euh, da ci fekk loxoy borom rek tey jii képp koo dimbali rek yaa ngi dégg amee sax ka nga dimbali sax mën naa dem ba am ni ah man kat diw ma dimbali woon. dëgg la te am na fu ma jaar te ba may naa doole. dëgg la kan tey jii ma ne naa naa ni moom. loolay fàttali na tey jii koo dimbali. Mhm. mu am. waaw moom it bu dee bu nekkee gor naa dimbali. gor waaw boo ko dimbalee rek du la fàtte. waaw du may ma jël. waaw jàngama day nappe moo gën. dëgg la dëgg la boo nekkee en famille. waaw koo koo jox fa daan daal di wàcc sax kenn dootu si dëgg ku wax nga ni ah kooku moom mooy xalifa général. ma a je t'assure. waaw kenn dootu kenn la ko xaw ma ngoog kon dèjà gars yi dañ gën a yokku dañ gën a yokku dimbali waaye. dimbal daal dara bàyyiwul kenn nag bàyyiwul kenn muy ku nekk fa nga loo am bokkoog doomu aadama bul xeeb dara boo wàccee sa ay nit ñëw toog si yow la nga am bokkoog ñëw boo xëy dem ci waat bul xeeb dara te gis na nit am nay milliard bokkoog nit bokkoog kenn yow nga am ab junni bokkoog doomu aadama yi ma ngoog xam ne lan la la lay jural ma ngoog ndax ndimbal moom barabu liggéeyukaay mm-hmm. yóbbu ci gone yi ñuy liggéey lu am solo la ndax gone bu liggéey dimbali bàyyam dimbali ndeyam loolu mooy ndimbal nit ki da nga koy jàngal bu muy nappe mhm. wutal ko gaal bu muy nappe mhm. moo gën di ko may jën jën ba mu koy may benn bis la koy lekk mu jeex moo tax ndimbal daal alaaj mu may moo am solo ci nit àddina bi ñu nekk nag mm-hmm. yàlla loolu dong nañu fi wàcc ku tane sa morom na nga ko dimbali waaye nappaaje say mbokk nappaaje saw xeet bañ leen a faale dem ànd ki jàmbur defoo lu baax de defoo ngor de boo fàttalikoo mag ña mm-hmm. nañ doon dunde ak seeni bopp sa mbokk can mm-hmm. ne ci àll mënul boppam dara nga fexe ba xam fa mu nekk dem jëli ko indi ko ragg ba mu set dugal ko ci place teg ko fu baax loolu daal la mag ñu njëkk ña daan def ca jamono yu Côte d'Ivoire ba Côte d'Ivoire di xew da ngay gis ku can Côte d'Ivoire aw xeeta ma koy jëli dañuy xam ne kii kat suñ ko jëliwu dana sant noonu la mag ñi daan dundee dégg noonu la mag ñi daan dundee ma la wax barki dem rek sama grand bi gaañu barki dem muy Mamadou Seck ñu ko wax Tour Seck moom it di sama magu xarit suñu benn bakkan moom yàlla ko yàlla yéen foofu ne moom it macha allah daan daan def lu baax ay rakkam ñoom ñëpp la teg si ay condition ku ne ñëpp la kër uuf ñëpp ay usine la ñu fay liggéeyee tey jii fa mu nekk nii tey du ko réccu tey am na benn bato boo xam da koo moomal boppam muy daw muy napp ay jën xamal lu mu wax yi benn bi euh, benn bi chaque jour day génne kenn kenn toog ci wax dinaa jàmbur waaye chaque jour day loo xam tey jii lu tapp lay doon boo mhm. wax koo génne xam lu mu wax gars yi nañ jël loolu wut fu ñu koy dugal muy doon jël ndimbal yi dëgg la maanaam chaque jour photo bi génnee dix millions mu dix millions yi. waaw bokk sama compte. waaw bokk sama liggéey bokk sama dara. waaw nañ koy teg foo xam pour dimbali jaar ñi nga xam ne la ñu toll suñ nekk. waaw weer deewee ñu may laaj ay location. waaw ñi nga xam ni ñu ngi si man néew doon ay ordonnance ñoom lay ñoom loolu dix millions yi loolu la rek. ba nga pour loolu la rek. loolu mooy loolu damaa boobu yàlla jëlee na ko fi. yàlla dara waaye nag yàlla ko yàlla xaar àjjana. yàlla dana ko fay. ba nga tëdd nii yàlla yàlla xaar àjjana. yàlla dana ko fay li nga doon def boo xeet na ku baax nga ku yar say mbokk nga ku bëggoon mbokk nga ku dimbali say mbokk nga doomu ndey bi xam ne ñoom ñoo mbokk ndey ku su ne yëkkati na ko wutal la jagg la loolu mooy ndimbal suqali sa suqali suqali suqali bokk say bokk say jigéen mm-hmm. néew doole mm-hmm. seen i borom kër néew doole nga fexe ba wutal leen suñu dëkk ah loolu ah, jihaat la nag bu ko loolu nag baa doole ko de as góor dëkk ko mën yor sa alal mm-hmm. dem ànd ak ab jàmbur bàyyi say bokk mag ñu njëkk ni dañ daan wax ku baax nijaay ma koy may jabar billaay mu ànd ak say ay ay mbokkam mm-hmm. kumba ndar sàmba ndar dërëm bi génnul gaal gi yooyu façon wax yëpp ndimbal la woon da ngay dem sa kër nijaay jël doomam suqali leen mm-hmm. jël doom jël jarbaat ya mm-hmm. suqali leen jël jël jëm sëb jigéen wutal ko fu mu dëkk ak borom këram yooyu lañ daan def bu njëkk yu baax yooyu moom na mag ñi daan xeexee waaye léegi na dañ lay xeexee oto di lay xeexee kër nga ñëw bokk kii lépp. Mhm. ñu ne la du ko nga dem takk ab jàmbur. Mhm. mu daal di say mbokk sànni ci àll ba indi ay mbokk indi ay mbokk ah noonu la ñuy def jigéen ñu bari noonu la ñuy def dañuy ñëw aakimoo mhm. la i la xaaral seen i sànni ci àll ba indi ay mbokkam parce que loolu yaa ko def da ngaa wàcc sa ànd dem ànd ak ànd àndub jàmbur loolu nag moom la ci mag ñi ci boppam loolu lañ daan bañ dañuy jël fii dugal fii dara du génn kër dara du génn xeet noonu la mag ñi daan def askan wi ñëppay ànd néegum ndey ñooy ànd sa géño bàyyi ñooy ànd loolu la mag ñi daan def waaw waaw noonu la mag ñi de moom ndax tamit mag ñi moom fi fi fi fi ñu tegoon seen tànk ñun ñoo ko wàcc ñoo ko wàcc waaye ba léegi ñoo wàcc yoon ay da ngay toogal ay ñu la mag suñu koy wax naan mag ñi dañoo nekkoon dañoo mobilisé woon nekk benn tabaski sa Moussa Diop war a collecté añi def indi si génn kër ñëpp añandoo naarundoo bu ñu paree bu ne daal dem mais gis nga léegi jamono ji léegi kenn xamatul lan la doy waar yàlla daal mosi teg ñi àndatu bëggatuñ seen i mbokk ku am ànd ak ñi am mm-hmm. mm-hmm. toog dëgg bu ñu woppee daal di faat dëgg la loolu nag mooy musiba gis nga Serigne Touba mi xam àddina mhm. seexam yi mu seexal mhm. kenn ku ci nekk dala wutal ab seex boo xam ne moom la la boolee boole seen ñaari loxo yi ne ko kap ne boole naa leen ba aljana mhm. gis nga Cheikh Marou bëgg yi da ko boolee sëñ Mandoumbe ban ñoo bokk xabru boo demee ci armée li Touba yi boo duggee ci benn xabru ah. boo laajtee xabru sëñ Mandoumbe sëñ sëñ Marou bëggee ngi ci wetam sëñ Touba leen seexale woon ca gànnaar boole leen noonu la def bokkam noonu la def ñëpp xamu bokk xam cosaan di leen boole diw mii ak diw ñoo bokk maam loolu mooy démb loolu la mag ñu njëkk ña daan def waaye jamono bii daal li ci xew doy na waar nit ñi bokkatuñ seen i bopp ay jàmbur lañ bëgg ak ñoo xam ne nii jëmuñu fenn waxuñu lu baax defuñu lu baax nga dem ànd ak ñoom bàyyi say bopp loolu daal rafetul ala wax bay say mbokk lay njëkk a woo kenn la laal ndax nit moom mën ngaa mën ngay dund ñu bëgg la waaye boo dee ñu sori la de dëgg la waaw dëgg la anay mbokkam lay njëkk boo woppee dong rek waaw da dax eh may leen ñu bàyyi ñoom leen moom ma la laal kenn la laal te aw jàmbur dong nga am bu ñooy ñooy def ñaan ñooy def lépp lépp tam dèjà ku sa nga boo tëlee rek la yoo tëlee say bokk loolu nag mhm. am moo ko gën di leen nemmeeku bañ leen a xeeb lu xew nga dem ca toog ànd ak say bokk mhm. mooy lépp dëgg la ànd ak say bokk mooy ànd ak sa bopp dëgg la jeex na léegi nag jamono bii ñu toll nii mhm. nit ñi daal xamatuñ fi ñuy taxaw yal nañu yàlla boole dimbali defal ñu sutura ah ñu ba ñu dellu siwaat fi beneen dimanche insha allahu rabbi léegi nag maa ngi ziyaare bu baax a baax mhm. ah maa ngi nuyu nag sama soxna Aminta Fall ak sama doom Aïda Samba Jaaji ak waa kër ga fàttewuma ci kenn ak i càmmiñam ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen di leen di leen di leen di leen ziare bu baax a baax a kër yi suñu waa grand place bi maa ngi leen di ziare bu baax ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare bu baax waa Pikine tamit bees fàttewuma kenn ñëpp laay nuyu ma nit Cheikh maa ngi nuyu ma nit ñëpp di nuyu tey ki ma santeel tey muy Mbaye Diouf nekk marché HLM numéro am 613 2811 mooy vraiment moo génn fii waaw tamit xamuñu ko xatee ko loolu yi ak sama benn ko de bu naan Assou Seck hmm. sama jabaru jarbaat di nuyu Ami Fall jël te soxna yi Mbaye Diouf di nuyu ñëpp ah, bàyyi wu ma kenn di nuyu suñu waa groupe di nuyu ñëpp di nuyu benn bàkkeeg soxnaam rakkam doomam maam jaara yàlla na ko yàlla may jëkkal bu baax mooy bu baax loo xale bu am yar la di nuyu ñëpp fàttaliku kenn ku leen da ngay juum jërëjëf baax la ma ngoog ñu leen ziar bu baax a baax a baax allahumma salli li ala sayyidina muhammadin wa sallim Bienvenue sur Salam Vision. Thank you.